ni da koy xar Kunkande nag mu ngi ci guddi gu bët seteegul jamono ji ñuy wax ak yéen ginnaaw ay bés yi la ñu génn ah, bi mu demee naan dafay jënd bee ngir génn Sénégal ñu daal di koy signalé xam ni moom moo doon waaj a jënd bee boobu pour daw génn réew mi ah, Kunkande defaat beneen pexe mooy lan dem ci ñi nga xamante ni ñooy communicateurs traditionnels yi daal di leen ger xaalis bu bëri ngir ñu toog si plateau télévision yi daal di koy ñaan njekk ngir mu bañ a xar géej gi ñi nga xamante ni ñoom ñooy communicateurs traditionnels yi bañ ba tëdd ni ñoom seen ngor mayu leen loolu ñuy def jëf ju naaw jooju naan dañuy teganteeg dil ak Kunkande Kunkande ba léegi naan dafay geraat ñeneen ñan la bëggoon ger mooy xale yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fële ca géeju jun xale yi lébu yi dem tamit jox leen téeméeri junni ni nañu fexee def la tuuba attaqué ko ne ko bu mu xat géej gi maanaam def la tuuba empêché ko mu xat géej gi bu ko defee mu am fu mu jafandu Kunkande ay pexeem jeexagul Kunkande mi ngi ci guddugu euh, bët setegul xibaar ba nag information bi ñu ngi ko jëlee fa nga xamante ni euh, moom mooy euh, métro Dakar waaye nag luñ leen ci mën a wax mooy Kunkande xale yoo Yoff xale yu yi xale yu Wakaam yi nee nañ na ko xar ndax moo ko diggee te bu dee moo ko diggee te mën na ko naka xar ñoom ñi ngi koy xaar xibaar ba nag dinañ ko toppandi xam wànneen fan lay mujjee ak i gëtëm way di abonné seen site d'information bii di Dakar Net jaare du leen rëcc ci réew mi ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakar Net daara la rëcc ci réew mi ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor ak Dakar Net daara ci réew mi